libéraux yi def fi 24 ans maanaam Ablaye Wade def fi 12 ans Macky Sall def fi 12 ans muy 24 ans parti socialiste def fi quarante ans waa léegi muy 64 ans yoo xam ni ñoom ñoo ko jiite réew mi waa léegi bi ñu fi defee 64 ans ba pare ana ñoom fan lañ yóbbu réew mi ba réew mi mën na toll ci situation bii nga xam ni sénégalais yu bari bu ñu añee duñu reer kon fukki euh, at ak ñaar yii fi Macky Sall def. dafa gën a yokk yàqute yi mais yàqute yi ma nga doore ca parti socialiste mi fi def ñeent fukki at ak Ablaye Wade mi fi def 12 ans moom ak waa PDS ñoom ñooñu nag tey ñoo dajaloo def benn bloc tuddee seen bopp intercoalition ginnaaw bi ñu yàqee réew mi ba noppi ni sénégalais kaay leen votel ñu pour que ñu soppi réew mi ma ni sénégalais yi yéen ku leen xam xam ne du ngeen ay dof ku leen xam xam ne sénégalais yi ils sont intelligents li ngeen defoon le 24 mars 2024 ba gis ni ñii ñi nga yàq réew mi ngeen tegaleen ne dem fal président bu bees muy président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu war a doxal réew mi présenté leen un référentiel référentiel bi mu leen présenté mooy yan yoor lay jaar pour que jafe-jafe yi réew mi di dund tem nangu ko mais du moom moo ko fi indi président Macky Sall nguuram ak ñi ko fi wuutu ñim fi wuutu ñoom ñoo ko fi andi mais moom mu tegal leen ay jéego yum nar a jaar aujourd'hui le déficit maanaam li nga xam si foofu la réew mi waroon a tollu li mu manqué mi ngi ci 4000 milliards 4000 milliards mooy ñeenti junniy milliards kenn xamul nu mu toll ci alal joo xam ne déficit la muy koom-koom boo am dafa dafa manqué ñu war koo mën a ñu war koo mën a yéegal pour mu ñëw ci niveau normal loolu rek liggéey bu mag a mag a mag la boo xam ni li mu laaj bari na lool te euh, yaakaar nañ ci sénégalais yi pour mën koo am. actuellement bu ñu jëlee la population du Sénégal ñu ngi wax ne Sénégal mi ngi toll ci dix huit millions environ en deux mille cinquante la population du Sénégal doit passer environ à entre trente huit millions et quarante millions de personnes kon xam ngeen loolu lu ñu war a waajal la trente huit millions du caaxaan te foofu lañ jëm en deux mille cinquante moo tax en cinquante li président Bassirou Diomaye Faye wax ci ci référentiel bi mu présenté Sénégalais mooy fi mu bëgg a jaar pour soppi réew mi andi beneen xar kanam dani actuellement le taux de pauvreté maanaam ndóol fi mu toll ci Sénégal mooy téeméeri sénégalais yoo jël téeméeri sénégalais yoo jël ñi dañoo ndóol amuñu dara te ni ñuy xaymaa ndóol mooy koo xam bu xëyee ndékki sax da koy të mënta am añ bu mat mënta am reer bu mat dëkkuwaay ba matul. mi ngi ci coona boo ko xoolee xam ne kii sonn na maanaam les besoins les plus élémentaires maanaam li gën a yomb ci àdduna amul mooy ndóol ñi ndóol ci Sénégal téeméer boo jël actuellement au Sénégal référence bi partir de mille 2023 ñu ngi ci 38 pour cent maanaam ci gàttal sénégalais yi boo leen jëlee téeméer boo jël fanweer yi ak juróom-ñett dañoo ndóol maanaam fanweer ak juróom-ñett ci téeméer boo jël bu ñu añee duñu reer sonn nañ ku ci war a takk soxna amoo loo ko takke ku ci bëgg a ndékki amoo loo ndékkee wala booy ndékki da ngay taqale wala la ngay ndékkee ndékki lu ñàkk fayda lay doon mooy ñi si amuñu dara ba dara booloo ñooñ gis ngeen lim bi ni mu toll téeméer boo jël fanweer yi ak juróom-ñett mënaluñ seen bopp dara xam nga réew moomu kay musiba am na fa waaw léegi président Bassirou Diomaye fay fan la wax ni fa la bëgg a jël jële ñooñ yóbbu leen dani si deux mille cinquante à la place de téeméer boo jël fanweer yi ak juróom-ñett ndóol dana def at mu ne mu koy wàññi at mu ne mu koy wàññi at mu ne mu koy wàññi ci politique yi mu leen yi mu leen bëgg a tegal yi ma leen nara wax ci kanam tuuti maanaam at mu ne mu koy wàññi at mu ne mu koy wàññi ba deux mille cinquante téeméer boo jël yi nga xam ne ñooy nekk ci jafe-jafe du nu romb fukk donc réew ñépp mun ñoo nekk ci. ñëpp mun ñoo nekk ci guul tàndaat réew même réew yu développé yi d'accord nañ ni day am ñoo xam ni dañoo nekk ci jafe-jafe man mii bërki démb laa jóge Chine gis naa ni réew mu am doole la mais la may am doole am doole visité naa ay quartiers yoo xam ni bu ñu añee duñu reer noonu la àdduna di doxe mais li bon mooy nga am ci nombre bu lim bu rëy rëy rëy te tegoo benn jéego pour wàññi ko kon fanweer ak juróom-ñett boobu nga am ñoom ñoo ndóol ci réew mi en 2023 en 2050 Bassirou Diomaye Faye fi mu bëgg a jëmale réew mi dana wàññeeku ba téeméer boo jël fukk rek ñoom ñooy nekk ci situation boobu bu ko defee dimbali leen day yomb bu ko defee sénégalais bu nekk mën a gis boppam ci réew mi kon loolu objectif la boo xam ne mi ngi ci référentiel bi président Bassirou Diomaye Diakhar fay présenté sénégalais yi beneen bi mooy dañoo jàpp actuellement ne Sénégal xamul tax mu ndóol mooy lépp li fi nekk ci alal Sénégal bari na région boo dem am na doole ju mu am région boo dem am na alal ju fa am surtout région yi jàpp ni ñoom ñoo gën a ndóol région yooyu sax ñoo ëpp alal fuuf région yi nga xam si ñoom ñoo leen ëpp koom-koom bu joxe na exemple moom président euh, de Pastef candidat à la liste nationale Ousmane Sonko wax na ko wax na ko démb ca tàmba ne Tambacounda bokk na ci région yi ëpp meññeef région yi ëpp sous-sol bu am alal mais moom moo gën a dellu ginnaaw ci Sénégal bokk na ci zone yi gën a dellu ginnaaw ci Sénégal c'est parce que li nguur yi fi jaar depuis 1960 li ñuy def mooy ñoom lépp luy meññeef wala lépp luy alal muy fer muy zircon muy pétrole muy gaz lépp lu ñu am dañ koy jël rek dem jaayi bitim réew wala sax dañ koy jël dem wanteer ko bitim réew léegi nag nguuru président Bassirou Diomaye Faye lu mu bëgg a def mooy lépp luy alalu Sénégal kenn dootu ko jël noonu de façon brute dem jaay ko tubaab yi dañ koy jël transformer ko au Sénégal du donc l'industrialisation maanaam wut ay xarala wut ay entreprise ci gox bu nekk entreprise ya fa war a am ñu def ko fa ba nga xam ne la nga xam ni moo fa nekk ci alal dinañ ko transformer au niveau local mu jox xale yi ay xëy xale yi am liggéey ba noppi koom-koom bi des Sénégal bu ko defee ñu def ci valeur ajoutée doog koy exporté bu ko defee mu mën a andil Sénégal ay devises yu ko mën a may doole kon lii mooy vision bi nga xam ni une vision stratégique maanaam xam-xam bi am si moom lañ dëxëñ ci document de référence bi pour que ñu mën a jëlee Sénégal ci fi mu nekk jëmale ko ci kanam kon li nga xam ni moom lañ bëgg mooy nan lañ ko nar a defee parce que loolu moo ci am solo lii ma fi wax léegi nan la président Bassirou Diomaye fay wax ni moom la ko nar a defee lim ko nar a defee mooy dafa pàcc pàccee réew mi juróom-ñetti gox léegi développement bi dootuñu ko yamale ci par région maanaam région dañ koy tege nële boole ay région pour ñu boole seen doole parce que les grands ensembles ñoom ñoo mën a andi koom-koom ñoo mën a andi développement maanaam lu ngeen di gën a boole seen doole di gën a am di gën a am koom loolu moo tax léegi dootul par région ci lañuy teglee politique publique dañuy jël ay régions yu bari nan la nan la diviser Sénégal dafa jël Sénégal diviser ko juróom-ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi pàcc bu njëkk bi mooy Dakar ci juróom-ñetti benn bi mooy dakaar mu xool dakaar li nga xam ni moom mooy potentialité dakaar li nga xam ne moom la dakaar yore ci doole mu xool nan la koy yokkee pour dakaar gën a yokk doole nga xam ne li ci ëpp ci ay service la. parce que dakaar li nga xam ne moom mooy particularité am munoo ko yemale ak Ziguinchor wala Tambacounda parce que Dakar mbay mayu ko doole mais dakaar secteur tertiaire moo ko may doole foofu la ñuy sukkandiku pour gën a dooleel Dakar bu ñu paree ci dakaar ñu dem Thiès muy pôlu Thiès bi bu ñu nee pôlu Thiès nag du région de Thiès c'est toute la zone du Cayor moom lañ tuddee le pôle de Thiès bu ñu paree de le pôle de Thiès ñu dem le pôle de Diourbel Louga maanaam léegi dootu nekk la région de Diourbel à la région de Louga à moo tax ci campagne bi su ngeen xoolee Ousmane Sonko du dem di campagne par département wala di campagne par région day seet benn place boo xam ñoom ñëpp a ko bokk mu woo leen fa ñoom ñëpp parce que ci biir campagne am day wone ni ci pôle territoire yi lay campagne moom campagneul par département campagneul par région day campagne par pôle territoire pôle économique de développement kon nag loolu moo tax pôle boobu. bu fa duggee da ngeen gis ni bu duggee Louga day sar dem waa bale région bi yëpp wan leen ni yéen léegi yéen laa boole parce que seen doole yéen a ko bokk dinaa leen wax ni lii laa bëgg a def pour développer seen gox bu paree foofu mu dem ci pôle nord pôle nord bee mu nekk dégg ngeen la fa nekk lam lam leen proposé comme programme de développement bu jógee pôle nord mu dem nord ouest nord nord est bu jógee nord est ñu am beneen pôle boo xam moom lañ tuddee la pôle centre ak le pôle sud ak le pole sud-est lii mooy juróom-ñetti pôle yi yi nga xam ne moom la gouvernement bu euh, président Bassirou Diomaye fay teg pour que mu suqali Sénégal ba nga xam ni léegi dootul nekk par région mais par pôle lay doon maanaam dañuy boole région yu bari ñu boole leen benn pôle xool doole ji ñu yore ñu fexe ba yokk leen doole parce que aujourd'hui boo jëlee ñi nga xam ne si ñoom ñooy la sant nga xam ne dañuy bay gerte gu bari te gerte googu ñuy bay bu ñu paree dañ koy jaay chinois yi wala ñu jaay ko indien yi léegi nag président Ousmane Sonko à travers le référentiel bi ñu présenter ci turu président de la République li ñu wax mooy léegi au lieu ñu jël gerte gi di ko jaay noonu def ko ci ay conteneur di ko jaay Chine ak di ko jaay Inde léegi dañuy jël gerte gi transformé ko xott yi ñu transformé ko lim lim mën a jur yëpp ñu def ci ay industrie yoo xam ni dañuy mën a def tous les produits dérivés de l'arachide ba nga xam dina mën a yokk suñu économie yokk suñuy emploi ba xale yi dootuñu dootuñu am jafe-jafe am xëy buñ ko defee foofu def ko Ziguinchor ak ak euh, la la la la zone euh, sud ak sud-est ku ci nekk li nga man ñu fekk si la ci dooleel la dina fe dina tax xale ya dëkk foofa dootuñu dem di mbëkki dootuñu sax ñëw dakaar parce que dañuy jàpp ne seen gox am na li li Dakar am kon nag rééquilibrer le développement de notre pays loolu moo lal li ñuy tuddee le référentiel des politiques publiques donc loolu moo tax c'est important quand tey ñu leeral leen li nga xam ni moom la ñuy waajal pour mën a suqaliwaat Sénégal tegaat réew mi ci yoon bu ko Séné bu ko defee sénégalais génn ci jafe-jafe yi nu nekk naa nag bi ñu paree ci loolu nag bi ñu leeralee li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi fi mu toll ak fi bëgg a jëmale réew mi ñu wax leen li nga xam si moo fi nekk parce que li fi nekk. ñetti coalition ñoo fi nekk di ruube ñetti coalition ñoo fi nekk di tappale ak di ruube kenn ki ka koy jiite moom ma ngay def campagne TikTok ak WhatsApp muy Macky Sall ñemewu la ñëw ci réew mi la ma leen waxoon am na dama taxawoon ne Macky Sall ku ko doon diri sax du dugg Sénégal actuellement ku ko doon diri jële ko Maroc sax du dugg Sénégal parce que xam na li mu fi def xam na ni su duggee Sénégal dootul génn Macky Sall su ñëwoon di campagne dañ koy bàyyi mu campagne parce mu campagne moo ñu arrangé parce que Macky Sall bu dee campagne daf ñuy permettre ñu gagner rapidement parce que sénégalais yi moom gis Macky Sall ak seen gis seen butit la ñu yemale Macky Sall bu ñëwee di campagne moo ñu arrangé man dama doon ñaan ngir mu ñëw campagne parce que su ñëwoon Sénégal di campagne man jàpp naa ni da doon yombalal sunu victoire mais moom ñemewu la ñëw parce que Macky Sall xam na ne bu ñëwoon bu ñu ko bàyyee mu campagne ak campagne ba pare bañ proclamer résultat yi ba pare ban bàcc leen bàcc ba pare dañ koy daal di woon ak yóbbu dikk mu rendre compte ci lim fi def ci Sénégal ñim fi rey sunu alal ji mu randal li nga xam moom la fi luubal moom ak ay nitam bu boobaa kon Sénégal ñëpp daañ xam Macky Sall lim fi def mais même bu ñëwul dégg ngeen li sunu tête de liste ko wax su élection yi jàllee daañ leen won parce que xam lu ñuy bañ dañ doon bañ teel a jàpp gaay yi buñ teelee jàpp gaay yi buñ leen gañee ñu ne noonoo non li ñu jàpp moo tax moo tax ngeen gañe moo tax ñu bëgg leen a bàyyi ba élection yi jàll yéen journalistes yi bu élection yi jàllee di ngeen sonn lool di ngeen jaabale tri jaabante tribunal ba sonn bu yi jàllee incha allah ba pare yéen journalistes yi di ngeen jaabante tribunal ba sonn parce que gars yi leen yàq ci réew mi ak ñi nga am ñoom lañ nara topp bari gi nu bari yéen journalistes yi seen liggéey nar naa metti te loolu ñun bëgguñu ko woon def avant élection yi parce que suñ ko defee avant élection yi dañ naan dañ leen a singli élection yee tax ñu leen di jàpp loolu moo tax ñu tegandi lépp ci suuf mais réew lu ñëpp bokk mënoo koo sàcc def ci lu la neex ba noppi dara du la ci fekk ñoom ñëpp ils vont rendre compte donc loolu moo tax Macky sàll ndeysaan da nga koo yërëm bu demee bay xëccoo ak influenceurs yi nekk ci TikTok bi di campagne xam nga loolu gàcce gën a koo rëy Macky sàll dem moom mbay ñemewu la ñëw Sénégal toog ci TikTok bi toog ci Facebook bi. toog ci whatsapp bi ak di def ay appel ñu koy tegal ci ay micro pour mu wax pour que ñu teg ko ci haut-parleur yi pour ñu dégg li muy wax Macky Sall ndeysaan jar naa yërëm kon loolu mooy situation benn boor bi mais liste boobu du Macky Sall kese de ñaar ña ko jiite yëpp ñemoo ñoo ñëw ci senegal Macky Sall ak Karim Wade ñoo fa nekk di campagne TikTok ak whatsapp Karim sax moom daa jàpp ne xëy na ñàkk na élection yi moo tax kenn dégg ko mais Macky Sall moom chaque jour mi ngi woote ba tey bu wootee yëmbal suba mu